bu dee am na femme yaa nañ ma tàggee sama yaay dama amul femme lay wax ma leen di mais bon yéen napp jàmbur yi waaw duru may leen yéen bëgg leeral leen ngeen leer man ci dëkk bi laa dëkk man am naa xaalis léegi ah, sëriñ la benn benn sëriñ la sëriñ la hmm. sama bul ko la ma fekk ma toog sëriñ bi damaa bëgg nga déglu ma attentivement ah. ne man damaa bëgg fay la nga defal ma vidéo nga leen dama yokk awra damay sa seex yi la yàlla may ma man mii man mii maa la ko jox déglu ma déglu attentivement ma ne ko ñaata nga am. waaw mu ne ma nii yor ma yor ma yor ma un million mais mun naa la bindal chèque bu cinq cent mille. Hmm. mu pili chèque bi ma récupéré xaalis bi dugg ko sama poche yaa a une semaine. Hmm. sëñ bi woo ma téléphone ma ko nga baal ma ko boo wootee sëñ bi dinaa téegal sa nga baal ma ma ne ko dinaa téegal sa lii laa ko wax. mu ne ma mën ngay saaga ma ne ko boo amul chance vocal yi naa ko ànd naa ko wax fépp ko yow munoo jàngoo nga bëgg ma defal la vidéo ne yaa yaa def lii ak lii ak lii ak lii ak lii yaa yokk sama nanga parce que Serigne Babacar billaahi wallaahi taala mu ne ma léegi jox ma sama xaalis ma ne ko ma ne ko heureusement dafa ma taxaw maa ngi maa ngi sept millions huit taxaw ma ne ko léegi xaaral ma xaaral xaaral ma xaaral ma wéef la mais bu lay wéef da ngay dem maa ngi moom dem police mu ne ma jarul police mu ne ma léegi wépp ma trois cent mille yi wépp ma trois cent deux cent mille lu leer lu leer kii ma àndaloon ne ma garaal kaw kii kii bu ndaw la jox ko xaalisam rek ma ma ma ko cinq capture yaay di ma wéy ko cinq cent mille ne ko am ne ko boo lëggee man doo ma jënd ci ay cinq cent mille lii la maag la lii la ah, eh, léegi nag eh, yéen eh, wax dëgg la non ñoom ñaar ñoom ñaar samay noonu la xamal ne Pawlish sama xarit la li mu wax dëgg la de. ñoom ñoom ñaar xarit la waaye nag Pawlish Mbaye. wax na dëgg ñoom ñaar samay noonu lañ. parce que ñoom ñaar daa ñoom ñaar daa ñoom. dafa nag rek. ñoom Pawlish bu jomaay bi. Pawlish bu jomaay bi yow li ma suñ doon say noonu. suñ doon say noonu lii génne nañ ko bu yàgg na fii nga ñu. jàpp loolu koy génne la la laa wax yéen lu ma leen wax. la laa wax la laa wax lan. yow yow bi ngay def yow bi nga wax li nga wax. suñu plainte nga débaalee suñu plainte nga débaalee di. bon plainte. Ah, la la ah. avec kii gu weex gi. bon plainte ah, la. a plainte. yow yëgoo lool. yéen yéen waa léegi waa laaj leen. waa léegi yéen lu ma leen plainte yéen lu leen ma lan la. leen ko ci biir. loolu dama waa léegi lu waaw ñëwal. lan laa def waa léegi laaj leen lan laa def damaa bëgg a dul ma lan def ba ngeen plainte ma lan def. Hmm. bi ngay génn fii. waaw wax leen lan laa def. suñu bopp yu ngand yeeg suñu wax ju bari yi nga taf. de eh, eh, yéen nag ma amat dinaa ko wax de yéen boo leen ko waxul sax dinaa ko wax wax leen lan laa leen def. non man li si problème mooy li si problème waaw wax leen waaw. yow Pawlish yaa jàppale Amadou Ba ba mu ñàkk. non non waxu waxu waxi Amadou Ba de. waxuma waxuma waxi Amadou Ba. waxuma waxi Amadou Ba plainte bi laa bëgg. neen leen ko lan laa boppam ci Amadou Ba Pawlish yóbbuwul boppam dañ ko jàpp ci loxoom yóbbu ko ci Amadou Ba. eh man bañu ma Amadou Ba damaa bëgg Amadou Ba dama ko fonk dama ko gër dama ko fonk dama ko respecté bañu de Amadou sama papa la sama xarit la sama kilifa la mais boo nekkee xale nekk ci ab dëkk. waaw nga dangay xale du xeex état man xale Pawlish waaw nga déglu sama kilifa la. dama laa bëgg a dooleel dama la a dooleel ci réew mi da ngaa opposé wul kenn. ànd kay. xale laa xale du xeexee état. Hmm. te man yor samay marché yoo xam ne état rek moo ci mën a jàpp état mu mën a dooleel. Hmm. du dëgg. man xale bu ndaw laa. Hmm. buuse yoon na xaw ma koo àndal man la Diop rek laa àndal. ma waaw yaa ngi ni ubbi sa yaa ngi ni ubbi sa fii bu eh, bu bu bu te nga faral état. te yow te yow état li ma waraloon moom yëpp naa ko. te yow fi nga ubbi fi nga ubbi fi nga ubbi place yoon la eh, kon turuma état de. ah kay ah kay ah kay. nit ku ne daa am nitam. lan joo bay sama nit waaye état bi li ma leen di ñaaral mooy réussir pour ñun ñëpp ñu am jàmm. Hmm. ñoom bu réussir ñun du ñu am jàmm di. Hmm. ah. Mm. Amadou Mbaye. waaw ah, ko état moom wax dëgg yàlla réussite am la ñëpp di ñaan fu ma ndaa ba tëx ba. état réussite am Jomaay dalaa waroon a investir ci député yi yow. <laughs> waaw dëgg la parce que yéen ñëpp bi ngeen demee si Amadou Ba man maa toogoon ci Jomaay. déedéet ñoom ban moo yóbbu ci Amadou Ba ñoom moo yóbbu woon. ah defal nag rek Modou Mbaye Modou Mbaye am na ñuy àndaloon te gaa yaru rek. am na. am na ñu àndaloon ay kilifa am na ay kilifa yu ñu àndaloon de. man sama bopp c'est eh. ma personne c'est ma eh. personne sama sama bopp ma eh. ñor man demuma. Ah, ah, am na ay kilifa yu àndaloon ñu ci làmb kilifa mag yu àndaloon ñu ci làmb na sama papa dem amul problème. na kilifa yoo xam ne na sam papa dem amul benn sam papa nga bëgg wax na sam papa dem. <laughs> xoola kaay ma wax la xoola maag sama papa ci suñu biir kër sax da doon metti oui ma ah, bu bu xëyee dem bu xëyee dem bu xëyee dem fee déglu nag su xëyee dem fee déglu nag su xëyee dem fee ma dugg ci biir kër gi taal sama puno ci kër gi xoola ah, ah, yoo xam ne dañu ànd ñoom mais dañuy kolu dañuy kolu pour kenn damay damay eh, damay eh, damay kata <laughs> <laughs> di woo war a dóor. xool yi ma war a fekk. alaay mais sa papa daa mos a kollu dem foofu. ah man waxuma sa papa de am. ñu naa sunu rek. yam na oto boobu yam nañ ku ne na nga for fi nga rek. ci ñi nekk ci làmb yi day ci ñi nekk ci làmb yi jël day jël ay paa Modou Ga wax jël nañ fi ay pas ay yoo xam ne ànd nañ fi ay pas ci ginnaaw bi daan doon toog xool woo dugg naag. moo a fen yéen ay waay alhamdulilah ba demuma. ah. mais nag mais ku sincère nga euh, euh, euh, ay nit. pourtant man damaa sincère de man oui ma parce que sama papa am na si gudd xam day jékki-jékki réer kër gi duñ ko gis. <laughs> ah am na daa ay kilifa yu kollu woon kollu yore soccu ah. bu dee bu dee Samba bëgg na socc de bu moom. ah, ah ginnaaw yi ay. Eh. naa yor ay yor naa ko xoolal sa bu dee soo ci ba. woon. woon réeróo woon. Pawlish wuy eh eh Pawlish wuy Pawlish Pawlish nga la. xoolal sa fii naa kii di socc bi ci ci ci poche yi bu amee est. sam papa la sam papa la ñun daal bu dee e-, élection yi ji jekk na jàmm yal na yàlla def jàmm Diomaye na gën a ci réew mi moog Sonko yàlla defal leen jàmm. amiin bi am jam réew mi am jàmm jërë yaa yonent bi. amiin wa salaam si nag. élection yi ñëw élection yi ñëw ñooy gagné incha allah yàlla baax na. ñooy ëpp député 150 député lañ bëgg incha allah. yal na am waay yal na am waay. yal na mais mais Modou Mbaye de. non waaw mais tamit dañuy waxaale sunu sunu xusa sunu. waxaale sunu soxla rek fi yow yow ñu lay seetaan Jomaa lay àndal de. ñu ñu lay seetaan de Jomaa lay àndal. man moom instant yii nii Pawlish Pawlish ñu toll il ñu xool ku ñu recruter quoi. di daandi sama waay la jàmm ña jaara wala man sa bi